Amadou Mohamed Ndiaye. a ngeen jëf parrainage yi tàmbali naa peeral ñenn ñi yëral xëpp bu njëkk soleil national yi conseil constitutionnel doon def ci wàllu parrainage yi jeex na démb ci min wi Khalifa Sall jàll na professeur Issa Sall bu PUR jàll na Karim Wade jàll na Samuel Sarr jàll na am na nag ñu bari ñu ñu kale ci parrainage bi ndax li ñu leen santoon ngir seeni dossier mën a jàll ci wàllu parrainage bi matlewuñu ko Abdoul Mbaye njiital acte Mbodj matlewul Abdou Wahab Ben Chalou matlewul professeur Amsatou Sow Sidibé matlewul Boubacar Camara Fipp matlewul Moustapha Guirassy matlewul Thierno Alassane Sall borom République des valeurs matlewul Mamadou Diop bu wàccoog askan wi soleil national nañu donte ba mu génne ca conseil constitutionnel waxul lu leer ci ndax dañu koo kalem dañu koy bàyyi mu jàll waaye ku déggaay waxam xam ne moom it matlewul dañu koo kale yéenekaay bi tegal ñu ci ne mboolem a yi ca conseil constitutionnel fukki ak juróom-ñeent bu ñu moytuwul danañu dégg muñ leen ba beneen la Sénégal nañu ñaari kaay yi ëlëmoon ñu bari mu di Khalifa Sall Karim Wade ba ñu defee vérification parrainage ca conseil constitutionnel ñoom jàll nañu ca premier tour mu des nag léegi yeneeni ponk yi conseil constitutionnel war a ci candidat ci di gaay yi ñoom Bougane Gueye Dany ñoom Pape Diop Abdoul Mbaye Thierno ñoom ñëpp dañu leen a kale les yóbbu deuxième tour mu di Idrissa Seck maître Madické Niang ak Alaaji Malick ñoom ñi seeni parrain jàllul libération xëy na leen rangale ci mu njëkk tuddee mbiri boulevard des invalides xamal ñu ne ñaar fukki candidat ak juróom-ñaar ya déposé woon ñaar fukki ya fu ñu jaar jekkalaat seen toogaay su du quotidien ñu juróom-ñaari sage ya ca conseil constitutionnel ñoo ngi segg gaañ yi ñoom candidat yi ñu kale ci wàllu parrainage source waa xëy leen tuddee ci la bokk Pierre Goudiaby Atepa ci la bokk Abdoul Mbaye njiital ACT ci la bokk yéenekaay bi nañu li ñëppi laaj te kenn amagul tontu li moo di candidat yi ñu kale ana ci yan anam la leen kale maître Madické Niang yéenekaay bi nañu ba mu duggee ca conseil constitutionnel ñu ne ko demal defaru juwaat ndax mat li woo maître dafa mer ba kanam ngay saxaar ba mu génnee dane Macky Sall ku nay la te soxar l'observateur nañu Madické feeñ le rek xëtamu njëkk Boubacar Camara bu fippu ne nguur gi fichier bi mu jox conseil constitutionnel am na lu ca laxasu Abdoul Mbaye moom li muy sàkk mooy doublon yi ñuy wax ci yëf yi ñu identifier ko ba ñëpp xam ko Thierno Alassane Sall ne ñu ci bi anam yi ñuy contrôler yëf dara ci leerul Bougane Gueye Dany di xamle ci journal bi ne dara weesagul obs tegal ñu ci ne ñaar fukki candidat ak juróom-ñaar yi conseil constitutionnel juróom-ñettee la ñu valider seen fiche parrainage témoigné nañu conseil constitutionnel mi kale candidat yenn ki gëm président Macky Sall ca lu ko falaat direct info nañu mooy njiital sikap borom modèle di Ibrahima Sall ndajam politique mu mu doon def keroog samedi ca Mbàkke fala wane léegi kenn mënatut wax waxi politique ku am doole ci wàllu politique bi ca diiwaanu Touba ak Mbàkke te doo ko tudd moom Ibrahima Sall moom Ibrahima Sall décroché ngir dugg ci la cour des grands lii la direct info bind ci xët mu njëkk journal bi nañu nee na mooy jël Touba jox ko Macky Sall ci wàllu politique la Sénégal nañu ci xët mu njëkk waa modèle di ñoom Ibrahima Sall ak mobilisation bu rëy bi ñu def keroog ca Mbàkke dafa salfaañe carte gi Kayaar ñàkk nañu maire Ndiasse ka ma fa ne woon faatu na liise ko xëy ci dellu si di ñu xamal ne moom honorable député maire ba woon ca Kayaar di Ndiasse ka faatu na ba ñu denc ko ca Touba député la woon ki koy wutu ci assemblée nationale xam nañu ko Maymouna Sène la tudd Thiès la dëkk xale bu ndaw la ku jekk la te jongama waxuma ko lii ko bind waaw turandoo karo